Amar maa ngi naan salaamaaleykum waa Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bàyyi ñu fi bala 4 avril ñëpp fekkee combat bi ndax combat bi du yomb ñetteelu combat lay doon troisième combat xam ma bëri nañ Demba Diop ñoom ñaar deux fois defan dafa lu méttee méttee méttee métti ëmma daan benn ñu niil benn bii nag mooy troisième fois bi fuñ koy bëree. arène nationale biir Pikine maanaam ñoom ñaar dañoo seex arène bi kii day génne Guédiawaye à gauche dugg si kii génne Pikine à droite dugg si muy rentré kii nag ndooy la kii moom foo gis ëmma seen gis ko fa ndooy moom sax bu la neexee nga ne Tyson de waaye man ndooy laa ndax gaa yu ndooy la ñuy wax borom ndaayaan borom ndaayaan mais nag gaal ya maa lay bégg ña nga fa fii la dugal nga ma ci géej gi tourné ma ci ndox mi ba may miiral waaw noo lay demee noonu ay lébu la ñu na ngeen a pare de non pare nañu lépp ah. waaw pare na pare na xam nga gaynde moom dafa neex àndal waaw mu ngi noonu ko pare nañ tous les côtés. kon Lac daal fi mu ne nii moom dimanche moom. non dimanche dañu ñaan yàlla may nu ndam rek. Mhm. Mhm. ndam daal ngeen di ñaan. waaw ndam la ñuy ñaan xel dal na fi mu nii ci ndam. bu baax a baax a baax. liggéey ngeen ba pare. liggéey nañu ba pere bu baax a baax a baax. léegi récupérer rek ngeen di def nelaw tëdd di xaar bis bi. waaw loolu lañuy def. Mhm. ana lañ jàng sama waa ji. non Lac lañ lat si boppam. waaw na xam ne am na komba bu baax. mu xam ko waaw moom ni muy communiquer baaxul. ni muy communiquer. non ni dafa baaxul rek. Hmm. Mhm. man kenn mënuma ma ko Eumeu Sène. ah loolu. non dama fu mu jóg dama xam loolu rek. li muy wax di tudd ay ndaayaan. man bu mu amoon lu ko daan lu bu fekkoon ne dama am lu loo xamante ne dañ ne tey jii day daan. mbër laa koy jox de moom laa xam. waaw ah, est-ce que amul ay xarit ndaayaan rek non ndaayaan daa yaatu di amul benn xarit ndaayaan mosul ñëw ndaayaan hmm. mhm. amul faa ñëw te doo ko yëg non dama koy yëg bu fa ñëw nga yëg waaw sa waaye ngoongu toog de lay <laughs> lay la laa loom de taay si nga ñi mépp defante nag lamba masta seet xaw ma xam nga looloom di parce que day xeex day bëree te des fois yaram bu tàngee day siisu ndooy doo def nii mais mais mais lanjang man de lanjang laay laay sali rek mais Landiang maa ngi lay ziar moo nami Landiang mais ci loo naka yëngu yi mais sa waay ziar nee ko maa ngi koy ziar ëmm mais ci loo yaa ngi am jaam naka yëngu yi ana waa Pikine ana waa Pikine ndeysaan koppe yow it naa la ak de fu ma gis ëmm gis la dëgg la noo tudd tax ko bu baax leen may ngeen jël du ñu maye dara te duñu lu ñu may ñu jël te duñu sax xaar ñu may ñu Nguer le grand champion waaw ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di la siyaar bu baax ñu lay siyaar ni bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi sant buur yàlla bu baax a baax a baax mel ni tey ki nga àndal moom yaakaar naa ne yéen ñaar yàgg ngeen a ànd xamante ngeen muy Eumeu Sène fi mu nekk nii Nguer confiance bi liggéey bi liggéey ngeen ci côté contact bi xam nga arène nationale nag daa bëri suuf waaw waaw mais. bis bi xalaat ngeen ne mën na cee def lu rëy. ah mais bi déggoo mu lax Eumeu boo booy wax ci làmb ci catégorie hmm. da nga naan université la université parce que ñun ñi nekk ak moom xam nañ loolu ci moom waaw dañ koy ñaanal rek yàlla may ko wër ba jour bi mu moom boppam mën boppam yàlla may ñu ndam ci kattanam incha allah waaw. lax dina léegi màgg na ci xel. kan si. waaw xam nga làmb la mooy li ma la rek làmb moom day waaj ak ay mbokkam ñu waaj ak ay mbokk am na loo xam ne ay waxu bataille psychologie la rek mais ama seen da koy wax chaque jour góor bala nga kaay yàpp da nga koy ñam du ñamante nañ du xam na moom xam na kon dañuy ñaanal suñu mbër wër rek ak jàmm ak salaam yàlla may ñu ndam ci kàddu incha allah yàlla na yàlla def jàmm. séeréer ab saak ndumbe ab saak ndumbe. waaw waaw xam waaye boole ci ñoom ñaar rek. kon ak ab waxal ñaar yëpp waaw. am sa amu moom yàlla am sa mooy sa xarit waaw daan ah. di di ma jox ay lekk yu am soo waaw ah, ah, mais yaa ngi si jàmm alhamdulilah alhamdulilah mi ne fi mu bi de yaa koy préparé kenn narta lëmbe fi mu ne nee naa la ku lëmbe corona bi laa lay booleel la wax nga dëgg du ma ci fooyee sax foowoo ci mukk xam nga yow ku ko roy ci yow dina jéem a doon daanaan waaw mais daanaan nga nag Babacar xaw ma lay roy sa affaire daanaan nga de ah waaw mu ngi fii ñaata nga am benn de laa a ko ñaanal ah kon man li ma jaaxal am na benn jour. ñu ne ma Babacar am na ñaari jabar. ah dañoo juum nag de. yow bu yow xamal sama jabar nu mel mooy ku ñuul ki. teneng mooy ku ñuul ki. déet benn jabar rek laa. nu mel mooy ku ñuul ki. ku ñuul te te njool kan la ci. <laughs> ba tey gis nga père de père père. père nag père man moom faw ma man daw nga ma fu nekk waaye nag man xam nga yàlla may dogal yàlla may tombaleeg yow. waaw loo tey dama laa gisati ci beneen lug mais peer nag père nag man damaa bëg nag nga wax ma père defal nii père faw nga wax ma eh, sa faw nga wax ma sa faw woyu ma faw nga wax ma sa secret nag macha allah. lan mooy secret ci lan. non tey xoolal ni nga ni nga mais ni nga. mais booy tamit nii laa mos mel nag. mais des fois dama lay gis bu nit nekkee nooseur da ween koy nangu soxor baax kii de jox na ma ensemble boo xam ne nii Petersen lay jaay yére de lu leer laa la wax ci loone <laughs> sant Babacar ci am nga affaire sant yàlla bu wér. koo àndal daaw bu soo sorti brousse. booy ba dalaa daan de nee naa la mbaytin sa kanam gi tax na népp ak suuf sël mu nga de mbaytin dañ laa daan ci mbapat ba léegi wax ah, fa daan kan ah, baa ngi Equivox de kan moo fa daan ah, daan nañ la ca mbapat ma war mbapat la barki démb mais nag mais nag dama la gis léegi ngay wàcc ci mbapat yi non damay wàcc xam nga tey jii boo entraîné ba am sa doole. sa doomu ndey Baye Ma Ndiaye. waaw waaw gis nga maa ngi sama fils Baye Ma Ndiaye. ak cat bu waalo. waaw dañuy wàcc de. kooku man sax mënu maa daan a bay daan mbar mi. barki Serigne Bamba luñ liggéey du bur ndaamali Babacar maa wax lii gan gi lu mu liggéey du bur Eumeu Sène luñ liggéey rek nga xam de gan gi ñaata weer ñu ngi maa ngi moom ñu ngi ànd lu mu daj dama ko xam si combat bii nii Babacar bu dee entraînement mooy may ndam barki alxuraanu karim la déggee numéro 2 jël bu rëy lay daan Eumeu Sène maa wax lii waaw. am na solo kooku mbaytin la. xam am ay boy yu ës ci la bokk. majji majji bu waalo majji majji bu géej way mbaa dimanche dina majji majji ah, waaw incha allah waaw waaw waaw sëy waaw mu ngi nii de maa yor caméra man eh, Alioune Seye ngi yàgg maar jaase ngi waaw na waaw moom kay nañ ko nañ ko def kenn par kenn rek maar tourneel ma ci jaas waaw waaw ay maar ay maar waxoon naa la ko bërki dem adresse Senghor de maar kii bu la dooree ku nga yàq nga <laughs> di nga man de loolu laay laaj cëy làmb cëy Lac de waaye cëy Gaston Mbengue père Gaston nag jar naa jaajëfal tamit de oh, wax nga dëgg nga ne liir liir bu daawoon judd lii la ñuy bàndee jumbax wi Babacar lii nii waaw cëy yàgg waxati nga de dëgg de wax nga dëgg de xoolal lii xoolal lii kooku mooy Lac de Guiers numéro 2. waa ji man de waaw yàgg maar damay xëm. nag daa mën a film. waaw mooy boo mënee film. mooy te man faw ma ànd ak ku man a film. waaw dafa leer waaw. lu ne lay wane. waaw lu ne lay sa loxo bi sax mbaa ko wane. man de xawma lu <laughs> fii dara dew fi. <laughs> mel ni arène nationale ngeen jëm seeti wàccoon ngeen fa miin ngeen ko muy miin jot ngeen faa jaar kat nuuf ga daa bëri nag. ñoo koy dal arène nationale ndax ñoo ko fa njëkk a bëri ñoo ko fa jiitu. kon ñoo koy daalal rek dalal ko baax ne ko xam nga fii ngay toogee. mais gannuf gu bari googu noonu suus nga xam booy bëri say tànk day suulu. amul damaa tarxiis. waaw looloo tax mu war a neex nag. looloo tax mu war a neex ndax ñun pare nañ ko pare nañ ko pare nañ loolu waaw pare nañ ko <laughs> waaw du mën a ñàkk yàgg mar <laughs> lak génn na oto ba mu ngoongu de taxaw gaa yi wër ko Alioune Seye ngi taxaw gaa yaa ngi noonu taxaw Macha Pereira mooy sotti xorom si bilaay màccaa ngongu màccaa ngi sotti xorom si de Papis sa ngongu taxaw gaa yi wër ko xam nag hélas fi nekk nii béy daa wuy mbuus nag lakkaat daa soreetul de lakkaat soreetul lakkaat dafa jege gaa yaa ngong ñoom màjji gis nga gaa yi ni ñuy régler circulation bi bëgguñu dara jaxasoo fi mu ne nii benn benn benn ana waa géej waay seen mbër nii Lac de Guiers numéro 2 la jato le penseur comme niñ ko faral di woowe boo xoolee benn defe lam ci làmb yàggamaa ma seene ne ko ko yóbbee moo tax moo lay wan ne nag ma wax la beneen affaire nga jàpp ko mbër mu jafee bëreel la waaw socc moom kay li mu yor ci loxo bi bant bant la de te te gaa yëpp ku ci ne moom nga yor sax màcc sax yor na ci bant yooyu jar naa jaaxle de yaat ma waaye làmb ak lii ànd laatay kot se loolu Abdoulaat Ndiaye kot se loolu cey laat laga ngongu de màccaa ngay sotti xorom sa rek man de xoromas màcca préraar xanaa si xorom jóge wut fële nga xam ne moom mooy yàgg màccaa ngi sotti xorom si rek ñu ngay sotti xorom sa rek laay ngay wax lañu am de vous avez droit à quatre personnes nañ ko del xamuñu ko xoolal njaay caméraman bu laga ngi noonu laga ngi noonu cey la cey bi combat yéen a ngi ci direct la wax de 2STV waaye a ngi ci direct Equivox tamit yaa ngi ci direct Equivox TV image yu leer nañ du mën a ñàkk Laga Ngongu ànd ak Papis Diaz Aline Seyde mu ngay dugg 2S ak Mohamed Ali Ndiaye kot suba waaw Mohamed Ali Ndiaye champion du monde laa ilaha illallah am na lu may seen de man ñu yor ko mel ni bang yi bari na ci réew mi de waaye bii bang di bokkul ak bang yeneen yi bii sées de bokkul ak yeneen sées yi lamb daal lu la waaye mën a wax moom bés la boo xam ne nii garmee koy bëre joma koy bëre ndax nag fala de waaye ku daanu rus nag moo tax gars yi dañuy jël seen ay dispositif du ñu mayee dara moo la tudde ah kon jeex na ëmmaa ngoon ci biir oto bi am na lu muy def de téléphone lay wuyu du mën a ñàkk cey ëmm waa gaynde piki na ngoongu séeri xujja bu la neexee yokkal ko ko ci ndax loolu du ko naqari loolu moom dana ko ci neex kon ñuy nuyu xuja xujja madame Ngom Amadou seen mbër mu mu daan àndal di bëre ku ànd moom da nga mën a bëre Yaamu saar kooku séréer bu mënoon a bëree la moo tax ëmb ndeysaan bu ko morngom tëggalee yàgg yaa fekk morngom gàmbi bu mu gudd ba mu yàgg mu wàcc loolu eh, yàgg maar jar na fay bi dix mille cent mille franc ñëw toog di ko seetaan mi nga mu ngay wax ak lanjang ëmb ne na ko d'accord kaay pap moom xam nga pap pap dinaa la siyaaraat eh, dellu siyaar ngeen te ngeen ba génn de waaw ah, dara duñ ñaax di ko di ko ñaax rek. da nga ko doon ñaax rek. waaw dañ doon ñaax rek fu ñu war a jaar rek. Ah, hmm. daa am fu ngeen war a aw. waaw loolu rek la kaat nag Pape daa mel ni dëgmal na de. waaw pare nañu moom. waaw waaw. waat nañu Pape de. la njang woo na ko de. maarab dëkk boo ci dëkkee da nga cay bu ñuy xeex da nga cay bokk. moom Pape Sarr ma jox na ko téléphone ba mu ngay wuyu pour li lay wan ne kii wóolu nañ ko. kii day lu la waaye mën a wax booy ba waa Pikine gën koo jàpp ni ma gisee muy doxale moom Pape saar bëgg naa ko ci nit de am na keneen koo may déyanteel da yàgg maar yàgg yaa ma meloon ker gaal gi Ibou Ndiaye ubbali waaxu fa Franc waaxu yu doy waar waaye Zambala ko daan ca final ba sàmbalaa bu mbaaw xale boobu mën a bëre Zambala laay sama xarit laay caméraman oto bi de day raam oto bi de day raam yàgg maar mbaa mën ngaa raam yàgg waa daa non waa déet bés bee ko laaj boot la des fois ñu boot mbër bu wóoluwul fi mu bëgg a waaj bu ko neexee na waaj fii day dox ak oto ba ci bunt bi mu waaj déet def leen ko ci jàmm rek ak fair play loolu la réew mi laaj danoo doyal ci sànnentey xeer akub xeex ñu lépp am ci jàmm yàgg maar waaw waaw moom kay na lépp am ci jàmm rek jàmm dong la ñuy wër fi ne nii ndooye ngongu oto bi ku ci ne xanaa kan la bële waaw kii de Franc la war a dajel Franc de bër ki dem Ibou Ndiaye da koo waaxu ca gaal ga hmm. ama wàcc na de ama seen wàcc na de billaay ëma wàcc na yàgg maar ëma seen mu bul mu taay si nga wàcc na de grand poussin ëma wàcc na de yàlla yàlla na nga jàmm am nga jàmm sant yàlla bu baax naka forme bi ah, macha allah alhamdulilah la de <laughs> non yàlla ah. yàlla rek a pare. ama séeri xuj. yàlla may ndam. borom Pikine borom Mbaaw. waaw jaayee mbër. waa Pikine ak waa Mbaaw. waa waa Mbaaw waa Pikine lañ fi. ndeysaan ëmba ngoongu. yàgg li ci lii lii doy na waar. waaw ñun trois rek la waaw. biir de. Eumeu Sène ngoo nguy dugg Abdoulaye Ndiaye koy dugal ak commandant Thioune yàgg maar ku kaat lañ la may waaye xam nga nag yàgg nag yàgg deux na nañ leen nañ leen tëj waa bu leen neexee tëj seeni porte de kon jeex na de mel ni gars yi yéen a seere sécurité bi copain maa ngi waa ji. yéen a yore maanaam. fu gars yi nekk rek di ngeen fa nekk def seen liggéey sécurité jàppale gaay yi. waaw waaw loolu la yàlla def loolu la yàlla def waaw comme d'habitude rek am nga moom lamb moom dañ ñun ñun xam nañ ko bu baax ñun habitué nañ si lamb yow xam nga ñu bu baax waaw kon ni ñu koy defee rek respecté consigne yi xam nga mbër bu nekk ak nombre bu nga am nga dugg ko tranquillement ñi def face à face bi mu jeex si jàmm ñu accompagner mbër yi ñëpp ñibbi si jàmm ñëpp ñibbi si jàmm. waaw ngeen ko fas yéenee defee. waa ndeysaan ñu ngi noonu